yéen ñi bàyyi xel ci Séblu TV asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci tënkum xibaar yi ci kàllaamay Kocc ñu door bi la jotaayu xibaar ak politique ngir saytu ak leeral jëm ci manifestation yu fi amoon ci weeru mars bi ñu génn te mu duppe woon ci coowal Ousmane Sonko aji Sarr ba lu ëpp fukk ci ay doomu aadama ñàkk ci seen bakkan gouvernement bu Sénégal dafa xamle woon ni dina stamp ak kuréel ngir mu saytu li ni mel waaye boobu ak léegi gisaguñu ci dara. ñu des ba tey ci politique ak jongante gox goxaat yi muy mel ni boobaak léegi ba ñu ko jàppee ci weeru janvier 2022 ak léegi ku ci nekk yaa ngi samp sa ndënd ngir doon maire ca gox ba nga nekk loolu nag tax ñuy sampub laaj naan ndax du jur ay jeexintal ci tànneef wi ñu wéyal bila la jotaay xibaar ak xew-xewu jamono ab mag bu toll ci juróom benn fukki at moo faatu ci ab baar góor gi di wuyoo ci turu A moo faatu ca baar fii ci pikin ginnaaw bi mu naanee butéelu wiski wam ba noppi boole ca di fecc néew bi nag yóbbu nañ ko ca hôpital La Dantec ginnaaw bu polis bu Pikine defee liggéeyam ñu tàbbi ci tàggat yaram ak komba bi nga xamante ni moo dox ci diggante guy gi ak rëg-rëg guy gi moom ma ngay fës yéene di waajal bile combat ca États-Unis waaye ma ngi koy waajale ci ak box nee na noonu lay waajalee combat bi seen jàkkaarloo bu njëkk nag mu ngi fas yéene am dimanche bi ñu dëtmal ca TFM mbokk yi ñu buur bi la jotaayu xibaar ak xibaaru bitim réew lu toll ci fukki civil ak juróom ak benn soldat moom lañu faat ca penkum réewum Burkina Faso lu ni mel nag ñi nga xamante ni ñoo yor karaange gi ñoo ko xamle mbokk lii lañ leen fi indiloon ci tenkum xibaar ñu di leen jaajëfal te di leen jox dig daje ëllëg